Sall Macky Sall. Ça c'est des ça en fait c'est des sons que je fais quoi. Par contre je suis rappeur. C'est pas mal. Il y a du beat. C'est bien fait. Écoute bien, écoute oh bien. Oh Après tu appelles ton ami Matar, vous allez. Ça c'est c'est du wolof quoi. C'est moi qui fais ça hein. <laughs>

C'est Diablo qui fait ça. Diablo Diablo. C'est 35. Ah, c'est des trucs, c'est des trucs d'enfant. C'est extraordinaire. Tu as 9 ans, mais euh, vous avez cette capacité de réflexion. Bon, toi, tu me poses des questions vraiment pertinentes, quoi. J'arrive pas à y penser. Mais tu me dis, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, tu, dis quoi dans tes lives Tu m'as posé ça, non Ok, euh, je vais t'expliquer. En fait, moi, souvent, dans mon pays, on a un pays très instable. Tu comprends Très instable politiquement. Et que ces gens-là, ces mouris, nos mouris dirigeants, quand, ils, partent dans les, dans les pays européens ou bien en Amérique, ils font savoir aux dirigeants européens ou américains okay. que chez nous, il y la démocratie, il y la liberté, les gens pensent comme ils veulent et disent ce qu'ils pensent. Tandis que c'est archi faux. C'est des criminels encagoulés qui tuent, qui écrasent, qui emprisonnent. On, on est né dans un pays comme le Sénégal, un pays super dangereux, mais où on a des dirigeants très mythomanes, menteurs, manipulateurs, qui font savoir aux autres pays occidentaux que chez nous, on, est, on vit dans un pays très stable, très démocratique, très libertinant, etc., etc., Et pourtant, c'est archi fou, il y, la dictature. Donc, moi qui est là, qui est vraiment libre, bien protégé, qui me sens bien ici. Donc, vous savez, ici, c'est un pays de droit et de démocratie. Toi, tu en sais quelque chose. Tu es né ici, tu as grandi ici, tu es canadien. OK Mais maintenant, je suis en train d'expliquer aux citoyens sénégalais et à ceux qui sont ici ou partout dans le monde Comment nous vivons chez nous En vrai, c'est bien. Cette extrême terreur qui existe chez nous. Donc moi, je suis en train de leur parler, de leur faire comprendre le vrai, réel problème du terrain. Donc moi, mes lives sont d'ordre très politique. Ouais. Vraiment, nous, dommage, on a de mauvais dirigeants, des voleurs, qui signent des contrats pétroliers et gaziers. Tu chez nous, le frère du président, le président, euh, Ok Son frère a signé nos contrats pétroliers et gaziers avec Frank Timis, un très grand voyou international. Yeah. Oui. Qui, est en ce moment cherché, et qui est en train d'être, qui est cherché par le système américain, qui est cherché par l'Amérique, par la FBI, CIA et tout ça. Et pourtant, ce gars-là, le frère du de notre président, de même père et de même mère, a signé, des contrats, lui a légué nos ressources. On n'a que 10%. Imagine, chez toi, ton père, ta mère, je viens là-bas. OK euh, un voyou, je suis reconnu voyou international, je viens chez toi. Et que vous, vous me, vous léguez toute votre maison. Vous n'avez que, qu'une petite chambre où y habiter. Est-ce que toi, tu seras d'accord sur ça Vous me léguez toute la, la, la, maison. Vous, vous habitez juste quelque part, juste dans la cuisine. Est-ce que tu vas accepter ça Non. <laughs> non. Donc, c'est ça, nous, on vit ça. Exact, c'est exactement ce qu'on vit chez nous. Ah. Ils, nous, ils ont légué les, nos terres, ils ont arraché nos terres, ils ont légué, ils ont donné ça aux impérialistes. exactement. C'est pour cela que quand, tu, quand vous venez ici et que vous voyez parler, faire des lives, c'est pour ça. c'est de faire ça. Euh, voilà, c'est bien de faire ça parce que nous, là-bas, il n'y a pas de démocratie, c'est des voyous. Mm. C'est des voyous de vrais criminels. Tu vois Genre, euh, ils te laissent dans la cuisine puis il y <laughs> Exactement. Vous, vous avez, tout. Chez nous, des enfants comme toi, 9 ans, ils n'ont Ils ne peuvent même pas discuter avec, avec des, des grands. Ils ne ouais. peuvent même pas discuter avec leurs parents. leurs parents n'ont même pas de temps de les éduquer. Ils sont toujours en quête de pitance journalière, toujours en quête de quoi se mettre sous les dents ou de donner aux enfants. Donc ils n'ont pas cette chance d'être bien éduqués, bien protégés. Chez nous, il n'y a pas des... Comme ce que vous avez ici, vous avez partout, euh, le gouvernement vous a légué des espaces de jouissance, ou bien des espaces de jeu gratuits. Vous avez des piscines gratuites, des piscines municipaux. Hein? Ouais. Des piscines municipales, vous avez des jeux, vous avez, des, vous avez tout. Ouais. Eux, ils n'ont même pas d'espace vert. Dans mon pays, on n'a même pas d'espace vert. Oh mon Dieu, regarde comment tu me regardes. Tu, ébahi. Mm. Hein? <laughs> On n'a pas d'espace vert. Dans tout le pays, on n'a pas d'espace vert. Vous avez vu ici, partout, il y a des espaces verts. Moi, je, moi, Partout où tu veux, tu On, vous a tout donné. Le gouvernement vous a tout donné. Il est parti même arracher des choses de, extérieures et est vous, les donner. Parce que vous êtes ses fils. Il veut que vous soyez en paix, en sécurité. Il veut que vous soyez... Chez nous, ils ont tout arraché, ils ont donné ça au gouvernement euh, aux Occidentaux. On n'a rien du tout. Les petits, les enfants, de 8 ans, 9 ans sont écrasés. Ils n'ont rien. Leur avenir est hypothéqué. C'est quand faire ça Hein oh, je compte pas faire ça. Ils peuvent rien. C'est ce qui se passe dans mon pays, en fait. C'est des réalités, en fait. C'est des Vous ne pouvez pas imaginer comment nos gouvernements nous mentent, comment ils nous manipulent, comment ils volent nos ressources naturelles, comment ils dilapident l'argent du contribuable, comment ils dilapident euh, euh, les caisses de la nation. En vrai, il y a eh ils sont en train de, nous écouter. C'est pour cela, nous, on se bat pour, se libérer, en des chaînes On se bat, on est se pour se libérer des Vous voyez Toi, ton... Euh, ici, vous jouez sur... Euh, euh, à la télé Vous jouez sur quoi Quel genre de jeu Moi, je joue pas vraiment sur la télé, mais je joue plus sur des jeux, des Wii U, des, oh. des affaires du genre. Ok, c'est bien. j'ai pas eu cette chance. Là, tu me parles des choses que moi-même, j'ai vécu toute ma vie que je ne même pas ce que tu dis. Nous, on regardait les Booba, les Frisquettes, tu connais même pas, les D'Artagnan. <laughs> on n'avait pas ça, on n'avait même la possibilité d'avoir, en fait, de, euh, que, que nos parents nous lèguent une télé. Oh. Oui, <laughs> non. la télé, <laughs> t'inquiète, c'est triste, euh, euh, chaque, foyer que tu pars, mm-hmm. tu vois, Il y a une seule télé. Et que c'est les, les, grands, c'est les parents euh, qui gèrent la télé, qui regardent la télé, les, les petits qui n'ont pas droit à la télé. Ils ne peuvent pas avoir la commande, ils ne peuvent pas choisir quelle, quelle, chaîne regarder, rien du tout. Euh, moi, j'ai une télécommande, je peux choisir <laughs> n'importe quoi. Sérieux Ouais. Chez toi Je peux, euh, je crois, je Tu peux, peux faire ce que tu veux, tu as ta télé. Ouais, par contre, ma télé, euh, en ce moment, elle est buggée. Ah, ok, mais <laughs> tu as une télé, quoi. Ouais, T'as comment tout Ouais, je... Ce que tu as, et toi, tu es un simple, tu es un simple citoyen, tu es un simple, ok Chez nous, c'est ce qu'ils ont ça, c'est nos autorités, les fils euh, de nos autorités, qui ont okay. toute cette, euh, cette, euh, cette euh, euh, ces acquis, je dirais, ces, ces, ces possibilités. Okay. De toute façon, si, si vous me voyez ici, mais hier, vous êtes venu, vous avez ouvert la porte, vous êtes parti comme ça. Euh, mais, mais, mais c'est bon. Ici, c'est sécurisé. Tu comment il y les, il a des caméras. Même quand tu entres dans le building, il y a une caméra. Il y a <laughs> oui, il y toujours ici caméra, il y ici. Quand tu entres dans, l'appartement, tu as vu la caméra qui est là, bas ah Ouais, c'est bien caché. c'est fort. Imagine-toi, tu habites quelque part. Mais, je te ici, on est très sécurisé. Il a la police partout. Ça circule h Et malgré ça, toute la maison, il y a des caméras. Ici, tu sors dehors, là où on garde les caméra, voitures, il y, y a une caméra. Quand tu entres devant, une caméra. La, une caméra. Quand tu entres dans le, dans le couloir, une caméra. Il y a partout des caméras. Ici, tu sors, quand tu sors de l'autre côté, une caméra. On vit, je vis ici comme un président. Partout là où je suis, il y a plus de six caméras qui m'entourent. Mm. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est le président pas. qui a, qui a, a cessé. Il n'y a même pas une seule. C'est pour ça. C'est pour ça. il y a un euh, Oui, exactement. toi voler. Euh, c'est ce qui se passe dans mon pays. Donc, ils ont grandi dans ce système. Et quand ils, voient, ils me voient ici en train de parler, ils pensent que comme ils vivent ce danger-là perpétuel, que moi je suis même dans ce genre de danger perpétuel. Tandis qu'ils ne savent pas que nous, on est très, très, très sécurisés ici. Il y a la police qui roule à longueur de journée. Le 911, tu appelles, il vient ici. 5, 6 voitures. Il y a les caméras partout. il y a les, alarmes. Tu appelles le FBI, il arrive en, oui, en temps... de 300. <laughs> voilà. Tu appelles <laughs> exactement. Tu appelles la FBI, il vient ici en moins de 2 minutes. Des fois, ouais, ouais, ouais, ouais. Et eux, ils vivent dans la terreur. Ils savent pas. Ce que je suis en de dire ici, cette liberté-là, ils l'ont pas. Donc quand ils me voient, ils comprennent pas ce qui se passe ici. Tu vois Ouais, euh, tout le pays, il devrait déménager ici, puis le gouvernement, on s'en fout. Wow, formidable Ça, j'avais donné en fait cette idée. Je les avais dit que, en fait, chez nous,

on a toujours eu de mauvais dirigeants et ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas le changement. Ils sont à te tuer, même si tu as l'esprit de, quelqu'un qui veut changer les choses. Même si tu as l'esprit d'un révolutionnaire. Donc, je les ai dit, OK, vous savez, on a vu que depuis 1960, on vit l'enfer, on vit la, euh, la malgouvernance. 1960 Depuis 1960. Ah oh, c'est beaucoup. <laughs> Jusque-là, on vit ça. C'est beaucoup, t'as vu Depuis On ne vit pas la paix. Donc. Nous, moi, qu'est-ce que je veux les avais proposé ce que tu dit. t as, t as, t as, pourquoi ils n'ont pas délaissé cette, cette, terre et venu vivre ici. Quand ils vivent ici. Le gouvernement, j'ai envie de le frapper. Le gouvernement, tu Ah, vous allez Ah, ah, ok, ok. On Merci Allez, deux. Ok, ferme la porte. <laughs> Euh, macha allah ndeysaan sama xale yi ak ñoo baax sont super intelligents dafa ñëw xam nga rek ñoom dañuy foo foo foo ba neex leen rek man moom duma leen sax tal mais comme dañoo sob mën a laaj mën a lijjanti donc euh, moo tax mu posé ma question boobu quoi <laughs> ne ma nag yow lan ngay ci laay bi saa yi ñëwee rek nga tëju yow di wax si say yow doo ñu faale sax quoi loolu moo indi waxtaan bi waxtaan bi neex nag xale bu ndaw ndeysaan ma ne ko nag xaaral ma taal laay bi nag <laughs> ñu déglu la quoi non booy yàlla may ne leen nag ndeysaan yàlla da leen a may may may may may chance bu ñu am <laughs> xooleen booy bi rek lay ndaw. ndaw <laughs> moo tax des fois da ngay def laay ah moo laa yow moo laa maytul xale yooyu xam nga mun nañ la jiiñ pédophile xam nga mun nañ la nangam ndeysaan dañ ma bëgg nag mais des fois da ngay <laughs> seen wax seen wax yi da ngay da leen di yërëm quoi xam nga mun nañ la jiiñ pédophile xam nga ne mun nañ ne wuu yaay wooy <laughs> xamuñu ne booy bi moo leen koy wax fii partout y a des caméras partout y a des booy dugg ci biir kër gi caméra nga jàdd caméra nga jàddee ne la caméra nga fii ci oto yi caméra nga téye fekk un système fi dañuy liggéey mais ñoom bu ñuy xool ndeysaan ni moo laa mooy <laughs> xam ne te dayu bay du pasti bo bokkul affaire yi bokkul fii gars yi dof dof lu ba fii bokkul si seeni wax sax moo laa mooy fii fii ku dof dof lu gars yi dañ lay bal ba nga naaw fii boo fi jéemee agressé nit wala nga jéem a nangam gars yi la jàpp de dañ naan terroriste la dañ lay sol ay bal ñu ko fi def yëpp dañ leen a rey même canadien bu bu yor benn paaka rek paaka gën a euh, rek paaka rek gars yi dañ ko sol bal tatatatata ba mu tooy xat <laughs> fii gars yi foofu ñu de fii moo tax fii ay Macky Sall mun na yónni kenn nang waxi dof yooyu non yooyu da koy déglu di ree naan c'est c'est pas c'est c'est incroyable c'est ce qui se passe dans ce pays c'est incroyable c'est-à-dire dañ leen dañ leen a dañ leen a gagné mentalement mystiquement xale bi nee na neuf ans la xale bu ndaw te dama ne ko maa ngi taal laay mu ne ma non moi je sors pas je dois pas sortir là <laughs> booy seen bopp yee neex moo tax ma leen di dajale man bu ñëwee sama sama buntu kër sax du ma ko tëj fii amul sàcc yéen a ngi fàttali live ma leen njëkk a defal bu yàgg ma leen fii sama buntu kër du ma ko tëj ñaari buntu Canada yëpp ñaari bunt lay am fii fii bu ma tëj sama buntu kër damay liggéey ba mu neex ma ñëw fii amul sàcc caméra yi fi am partout amul sàcc mun nga ubbi sa buntu kër yaa mbalang ku dugg dee amul sàcc soo fort sàcc amu fi Canada Amérique yëpp Amérique laa la Canada États-Unis fépp kër yëpp yoo gis dafa am buntu kanam buntu ginnaaw am espace vert am partout lépp chaque bloc bloc lañ koy wooye chaque bloc moo tax américain naan maa black maa black ñun ñu naan bloc bloc mooy fii ba fële ruelle yi ruelle bi ak ruelle bi yooyu yëpp ñu naan benn bloc deux moo tax booy bu lay wax dañ naan la à trois blocs nga jàdd noonu la ñuy ay bloc la ñuy wax américain américain naan black maa black sama bloc benn bloc la donc fu ne am na buntu kanam am na buntu ginnaaw mun nga duggee fii génnee fii mais fépp caméra la sécurité garantie waaw backdoor mais <laughs> c'est vrai c'est métti nag mais nag bon comme ni ma leen koy waxee gars maa ngi leen di jox information yi à temps gars yi nag jekku ngeen leen bu baax a baax a baax bu am temps à la diversion. back door front door yeah buntu kanam buntu gina donc maa leen di jox les informations à temps ok waaw mooy sama koñ rek donc on doit pas dañu war a concentrer wu ci loolu on doit pas en fait di tarder ci yenn détails yi fenkat yeeg ñi ñuy bugg manipuler focus ah focus ñi ngi jekk bu baax gars yi Euh, am na loo xam ni moom laa leen buggoon wax sax te wax jotuma leen ko wax ma ne xaaral ma profité ci xam nga Adji Raby Sarr ma defee live bi mu jaxase affaire yi nee naa leen dañ ko déplacé <laughs> dañ ko joxoon benn gàlle villa bu am piscine am lépp muy dund comme une princesse di def lu ko neex ba ma ba ma ko délocaliser délocaliser mu jooy fa yuuxu fa tiit fa ngeen joxe numéro ngeen woote mu tiit yuuxu lu ne dal ko gouvernement bi woote ñeen nañ ko fa jële nu mu gën a gaawee fépp aji aji Rabi comme SDF aji Rabi comme kaña fépp la dëkk te fu mu dëkk ma déniché ko fu mu dëkk maa koy génne ci kër par kër fu mu ne nii am na fu ñu ko teg moom dinaa ko fa génne maa ko fay génne aji Rabi au nombre de six Adji Raby Sarr Mame Sène deux gardes ak deux personnes ñu au nombre de six ñi ngi leen yóbbu hôtel hôtel ah hôtel bi mi ngi tudd la Tanière Villa Médicis à Nguéreng hôtel bu nome la tanière villa Metsi à Ngereng foofu lañ fanaan foofu lañ fanaan guddi gi te gabi gabi gabi ki nga xam ne mooy gabi sow ñoom Mamour Diallo gars yëpp dañuy suivre live yi de Adji Sarr day suivre Mamour Diallo gabi yëpp bay suivre Sénégal mu wërngal këpp dañuy suivre seen live maam seen mooy ku mu dëkkaloon Grand Yoff ñuy génn di farantu maam seen mooy xaritam bu mu dëkkaloon Grand yoof en face Sogabek Grand yoof bu ñuy faran toog di caga toog ci euh, ci lañ xamee euh, euh, madame Tall ci la maam seen kooku mooy xaritam kooku la indiwaat kooku la invité woon këram bañ def seen nu mu seen ceebu joola si vous vous rappelez kon Adji Sarr ngereng la fanaan jour boobu mercredi jàpp jeudi mercredi laa def live bi mercredi jàpp jeudi Adji Sarr mi ngi fanaan hôtel la tanière villa mitsi à Nguéreng Nguéreng foofu la fanaan le lendemain bu mu fa fanaanee aji Sarr elle avait dans son visage devant son boo ko xoolee xam ni kii elle était épuisée dañ ko jekku trop épuisée très épuisée dama ko am nag Nguéreng tur wolof yooyu la rek turu séeréer yooyu la gëriñ ah, giriñ waa kon gëriñ <laughs> benn séeréer sama mbokk séeréer nee na ma giriñ waa giriñ ok tanière villa métsi a ah, ngiriñ giriñ <laughs> ngiriñ ok merci donc foofu la aji saar fanaan <laughs> am na loo xam ne bu ma ko waxee ci biir sax dañ ciy xam leneen mais am na leneen am na leneen ci biir léegi nag Gabi Sow moom ci boppam moo woote moo woote hôtel boobu parce que Gabi Sow daf fay nekk lu baree bare bare hôtel boobu Gabi Sow l'avocat ki bindaloon aji saar maître gabisow moom moo leen moo wax ne nañ leen yóbbu foofu nu ma leen di bàccee mooy saf ñi jël Adji Sarr ñaari garde yi maam seen ak yeneen ñaari nit yoo xam ñi ngi leen xaar foofu au nombre de six foofu la ñu fanaan loolu nag Gabi Gabi Sow moom moo moo leen moo ko proposé waate Petite Côte près de Somona Guérigne d' accord foofu la Adji Sarr fanaan mercredi jàpp jeudi guddi gi yëpp maa ngi def tek xam li ma xam <laughs> dafa leen topp de guddi la ñuy dox guddi ndakaaru yëpp Guérigne avant ngàpparu ndakaaru yëpp laa topp ñëpp laa donc Adji Sarr foofu la fanaan <laughs> aji dina nga jomme de <laughs> xam naa ni da nga ne kii est-ce que du dëmm le lendemain lañ la doog a jël wutal la mais gabi nga xam ni moom dafa tàmm di dem ci hôtel boobu la tanière villa médecine ngiriñ après ngàpparu donc gabi moo la moo proposé loolu autorité yi ne foofu baax na foofu nga fanaan ma bàyyi la deux heures du matin ngeen fa dugg deux heures du matin ma ne gars yi ban heure ñu ne ma deux heures mi ngi nii di ñëw six ma ne ok deux waaw ajee ngi nii dafa sonn nag Mollah dafa sonn kanam gi même gardes yi dañoo épuisé ma ñu ngi nii de gardes yi dañoo épuisé sax xoolal ndeysaan seen kanam yi oh mais Mollah aji aji sonn na de ma ah waaw ok ok waaw mais sonn na nag sonn na quoi mais ñu ngi nii ñu ngi nii dugg ci hôtel bi six ok waaw waaw répéteur yi xool de aca sar sar sar chambre bi chambre bi tak aji dugg ñu dugal chambre tak tak tak aji dugg xoola am na loo xam ne fekk ko fa mu génn laajte dugaat aji chambre bi am lu mu wër gisu ko mu waaw ça amul kii dafa am manqué kii kii comme jigéen rek après dugaat tak tak tak sama gars yi ah Mollah Sarna deux heures du matin lépp Mollah tak tak Mollah mission accomplie tak tak waa génnal acoro ceekul tak waa ji génn aca na donc demain ban heure huit dañu war a point ok guys huit heures incha allah en attendant ñu topp leen ba heure bi ñuy génn foofu ñu topp leen toog di leen topp di topp di topp di topp di topp ba aji bu muy jëlaat bagage am ba buñ koy jël di génn ba dugalaat ci oto ba taxaw acca gars yi acca waaw génnaat na de na yére sax lii la sol ok na ñi ngi jël ñi ngi jël oto bi ñi ngi jël oto bi ok waaw léegi fan topp tak tak tak gaa ah, installé bien installé moo la bien installé ok ma ne waaw ok gars yi waaw mais instant yi bul wax nag bul wax waaw bàyyil noonu bàyyil noonu ne ma fexeel nga ne leen aji delluwaat na ci appart boobu ma def publication le lendemain ne aji ñibbiwaat na fu mu nekkoon dañ ne woon dañuy changé numéro mais changé mais aji ñibbiwaat na fu mu nekkoon oto bi sax mi ngi foofu gaare ñu kontaan ñoom ne ah nax nañ moo fekk maa leen nax ah nax nañ moo fekk maa leen nax nga xam naa ne aji changé nañ ko loolu moo tax mati kwashiorkor mati marasme faal waxu génnewaatul pour wax ne damay fen pour moom rey na ma moo laa dëkkatul foofu bàyyil fen moo laa fekk man man maa dóor maa foo tëk sànni fële dóor fausseté ne aji delluwaat na ci appartement ba fekk man xam naa ne aji hôtel la fanaan le lendemain bu ñu ko génnee ba bu ñu ko yóbbu maa ngi ko topp ba ci villa boobu ñu ko dugal nii nii nii nii nii mais fu mu ne bu ma waxaatee ñu génne te boobaa dañoo restreindre cercle bi ba nga xam ni boo waxee rek tam ñu tam ñu ajji tem ñu ajji wala ñu tooñ ay doomu jàmbur jàpp ay garde daq wala tëj leen wala nanga fekk ñoom defuñu dara xawma leen sax <laughs> ma def tekk sànni ko ma faux pion laa ko sànni comme ni may de jeu d'échec la tak puus lekkal tak mu lekk tak am lekkal mu lekk tak mu lekk rang rang rang rang tuy ba fin nga taxaw di ko xool puus rek tak da dóor co lekk am am jëlal jëlal maa la ko jox am am indil ko jox mu ne tak am jëlal maa la ko jox tak nga oh, tël tël tël tël tël tël tël vuuj match ba fin nga taxaw di ko xool nii mu ne <laughs> donc noonu laay dox ak ñoom kenn du mënuñu ma jàpp ci dara du ma leen ëpp xelal pour gën leen a voyager dàq leen liir gën leen a yeewu moo tax mënuñu ma jàpp ci dara dama leen di foowee comme balu ping pong diggante boobu nag mane ne ok gars yi <laughs> bandi <laughs> ak ñooy ñooy ñooy wuyu <laughs> Eh, démb mu ne gars acca gars fan la ñu ne ma non casino du Cap Vert casino ah waaw casino boy voilà tey casino la ma ne acca gars mission tak gars dem casino tak xaar tak macaam ñëw otoom <laughs> macaam ñëw ak otoom gaare casino du Cap Vert gars fan la ñu ne zoom casino di Cap Vert tak acca ñu toog xaar 18 heures 19 ne faraj chemise liquette bleu chemise liquette bleu jean chaussure marron ñëw gaare Fiat noir mi Cooper ñëw gaare ko ci côté terrasse bi noonu tak gaare gaay nam e Mathiam eh, tak mola Fiat noir génn na de yee kaay photo tak tak tak ok Fiat noir gaare na ko côté terrasse bi ok waaw yee mi Cooper ok d'accord génn waaw mi ngi sol chemise liquet bleu ok jean bleu ok euh, euh, chaussure euh, marron tak tak tak ok nice gars yi lan tak macaam ñëw romb gars yi eh jaayee waay sama gars yi eh, ma tak ok tak tak topp guddi gi ba macaam bu muy tàggoo pour dem tàggu ba tàggu sama nigasi tak tak tak doon fuut benn càgg xam naa càgg bi tak tak tak tak tak tak tak gars ah, taal oto ma ne ok bàyyi leen mu daal bàyyi leen mu jàll na see aca ah, na see bàyyi leen tak aca ah, gars ñu toog trois heures du matin tu tey ca kala nax booy Fiat gis Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tak gaare taxi <laughs> ga eh Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tak tak tak tak casino du terre bi casino du terre bi ter ter ter alerte alerte alerte man yëguma lu xew ndakate gars yi may dóor alerte tak tak tak ma tourné gis ay cinquante appel manqué e eh, gars yi lan la lu xew mbaa jaam mooy eh, ma la foo ne woon lan la ñu ngi la doon woo Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi trois heures du matin dugg na dóor benn yor benn slim cigarette bi sew bi di dóor boo ne woon ma ne eh, may gars yi man dafa bëri info yi gars yi gars yi ndànk rek dafa bëri info yi dafa bëri gars yi calme suma waa ok ok ñu ngi la doon dugg na dugg na comme yow bu ñu lay woo boobu jotuñu la xam nga wàcc na taxi xam nga mais instant yi mi ngi resto ak ñi ngi sar ma ne gars yi sar gars yi ne farek farek dugg fekk Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ñu commandé seen lekk <laughs> moom kuñ naan mami mami ñaa moom yor moom it gars yi acca photo kay rek tak ñu nekk ci restaurant bi di coow moo laa ah bi ñëw na gars yi ngi dóor Fatoumata Ndiaye futa tàmpi bi leen waxoon ne dafa tàmpi toog moom en face ak xaritam bi ñu naan mami xam ne ak xaritam la boo xam ne am na jëkkër de mais da koy jël di ko may gaay yi ñuy fréquenté casino du terre bi ah gars yi ngi coog ma ne ok <laughs> leen ma ko tàppal ma ko ne ko bon appétit la manjante Fatoumata Ndiaye futa tàmpaani ma ne eh, <laughs> romb leen tàppal ma ko waaye ne ko eh, bon appétit la manjante Fatoumata Ndiaye futa tàmpaani ngeen romb gars ok ok gars yi romb tik tik eh Kelle Fatoumata Ndiaye Fouta Tampani bon appétit ah merci merci waaw Fatoumata Ndiaye Fouta Tampani ab manjant la di chaque taxaw fii jàpp Sénégal yi di dem casino di teeru bi dafa taxawaalu fa jouer loolu lañ ko jox ma ne sama beneen nigga bi eh dóor ko message mu ne ah ne ko waa dóor ko message ne ko ba xam jot nga xaalis bi message yëpp screenshot maa ngi ko yor fii de copain bi te yónneewu ko dara copain bi dóor ko benn mel tak tak tak eh Fatou naka mu nice jot nga xaalis mu ne ko ban xaalis si xaa <coughs> bi Fatou ma ta jaay de mi ngi lekk de ban xaalis kooku ne ko non dugalal naa la si sa compte bi Wave bi ah gisaguma ko de gars yi ma ne screenshot gars yi da ko tak tak tak yónnee ma screenshot ok good good ngi mi ngi toog moom ci restaurateur bi commandé di lakk ba mbàqali fees génn di leen fenn di wax lu ko neex ñu dóor sama copain bi ma wax ko mu dóor message ne ko ba xam jot nga xaalis mu ne ko non jotu ko ma ko def ban xaalis kooku bu ma dugal ci sa web bi bu edd bu mu ñëw ah non xoolaguma ko ko <laughs> gars ma ko jox yónnee ma tey tey ñi sénégalais la ñuy foowee foofu day jeex Sénégal barke Seydina Mohamed naa ko dakkal billaahi naa ko dakkal xeex bu ma nekk di def nii dama nee naa leen yéen toog leen di ma ñaanal ngeen nekk ci rek dinaa dakkal caaxaan bi ci senegal billahi wallahi wa taalaay dinaa leen traqué un par un un par ba seen bàmmeel yi ñu may sénégalais yi jàmm ñu jàmmal sénégalais yi sama gaay yi woo ko ci téléphone am tak tak tak tak téléphone bi di sonn nangul jël mi ngi toog ci di jël téléphone bi def nii xool def yi dóor ko message dóor ko téléphone tak tak muy sonné mu jël ko def ko mu wàññi kii bi mu ne nii tak tak tak wàññi affaire bi tak tak tak mu wàññi volume bi def ñuy toog téléphone bi buy sonné day day day lumière bi day génn copain bu ko kooku sànni woon ko message di ko wax loolu di ko di ko woo tar tar mu naan nii rek tar di lekk <laughs> di ngeen bàyyi caaxaan Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi boobu moo toog ak yéen Fouta Tampaani toog ak waaye sama tanta dafa doon daw daanu damm sama papa dafa foxoj ci baaraam sama nijaay moom ndiggi leen a kaxaj waaye waaye dimbale leen ma waaye dimbale jàppale leen ma te yàlla sax yéen ñi waa APR yéen ngeen ma dul dimbale facture bi boo leen ma fayul ma deede ñu génne ma <laughs> suba ngoon mi ngi casino di dóor <laughs> daw ñi leen doon dimbale ñëpp a daw kenn buggutu ci takk c'est vrai de dëgg-dëgg Antoine ñàkk jom da doon woo Fatoumata Ndiaye Fouta dafa rëy làmmiñ day dugg casino di teeru bi di wax ay waay ay waay góoru xombal na ngeen da ay waay ay ministre di bugg woon waa teeru bi yëpp que moom ñàkk jom bii nga xam ne moom mooy seen ministre de l'intérieur bu ñàkk jom Antoine Félix ñàkk jom di ko woo mu bugg woon téere bi yëpp ka Antoine ñàkk jom moo may woo di yuuxu ci téere bi ah waay góoru xombal ay waay ah monsieur le ministre namm naa la waaye lépp jàmm yore ab cigarette am namm naa la am na fuñ foo xam ne foofu lañuy toxee waaw sant yàlla lépp jàmm maa ngi nii waaw kay maa ngi bi moo tax dégguma la bu baax góoru xombal di ko woo mais ma commencé di leen bàcc léegi bàcc tar tar tar tar ba léegi ñoom góor xam ba léegi dafa xaw a rocceeku dafa rocceeku waaj fu nekk nii pour mu jot ko problème la góor xombal dañuy taxawaalu rek parce que dama dama leen a wër xam nga ñaar renseignement généraux yooyu ñoom léegi lu ci neex mooy ñoom ñaari papier la ñuy jox dañuy wër guddi gi yëpp noté lépp jël ñaari feuille jox benn gouvernement bi yónnee ma benn <laughs> looloo ci neex jox benn gouvernement bi yónnee ma benn moo laa jot nga copie ma ne waaye jot naa koy ok let's go man <laughs> jot nga copie jot naa ko bi ma ne ok nañ dem let's go dëkk bii dinaa ko régler de yéen déglu leen ma rek wóor na yàlla dina ko régler ba mu ne coc coc coc coc coc <laughs> eh, Fatoumata Ndiaye Fouta Tap jeudi yow Adji Sarr bu ma koy dóor muy daw di wëri fu mu fanaan yow boobu yo yaa ngi yaa ngi teeru bi di taxawaalu yaa ngi casino di teeru bi di taxaw boobu Adji saar moom mi ngi sonn ñàkkutooy xet mais ah xanaa yéene woo ko woon loolu Adji Sarr di taxawaalu di ak ay bagaasam ñuy wër fu mu nekk yow nga nekk ci casino teeru bi di taxawaale yow ak mami ñaa <laughs> di ngeen yem de yéen di ngeen yem de ak tux cigarette du naan sangara nag du naan sàngara man moom du ma fenal kenn Fatoumata Ndiaye tuxkatu cigarette la mais sàngara moom euh, sama gars yi nee nañ ma noo du naan du naan du naan du naan voilà waaw gars yi bu ñu leen joxee benn copie rek jox ma benn copie ñu téye teg donc gars yi foofu laa yem ak yéen ba suba ak jàmm ci opération rëbb dëmm en attendant ma préparé ko parce que ay dossiers graaw ñoo ci nekk ay dossiers yu suba moom incha allah incha allah comme ni ma leen ko waxee bu soobee yàlla dingeen am suba ma cuucu fay dingeen am suba incha allah bu soobee yàlla dingeen am maanaam lii di euh, voilà di ngeen am euh, suba incha allah ci opération rëbb dëmm laay wax ci opération rëbb dëmm incha allah dingeen am Macky Sulaar Sall di ngeen am ay dossier dingeen am oyof sër di am oyof sër fay suba incha allah di ngeen am maki Sulaar sal incha allah di ngeen am Mamadou Jaaña Njaay CSS Mamadou Jaa Mamadou Mamadou Jaaña Njaay à la vous aurez demain à la barre dans opération rëbb dem ordre appelé à la barre Marème Faye oyof sër Mamadou Diagne Ndiaye CSS la list de góor jigéen di am seen dossier di ngeen am Amadou Ba à la barre Racine Sy à Malick Seck le frère le de Marème Faye Sall oyof à la barre di à la barre Thierno Ba Ndom à la barre Mathiotou Faye à la barre Moustapha Diop et son chauffeur Bamba Amar à la barre Doudou à la barre et tout sur le rapport définitif des fonds du Covid business, Corona business. Le tong-tong national des 1000 milliards volontaires volatilisés. suba incha allah waaw jaaña njaañ jaaña njaay CSS góor jigéen suba di ngeen ko am incha allah ma cuucu fay di ngeen ko am suba et tout sur le rapport définitif des fonds du corona business El Hadj ambassadeur itinérant di ngeen ko am suba ñooñu mooy la band à Malick sek a Thierno Bandom à El Dia ambassadeur itinérant ma cuucu fay Moustapha Diop et son chauffeur Bamba Ama Doudou Ka di ngeen leen am suba ci seeni à vingt heures GMT heure de Dakar di am tout sur le rapport définitif des fonds du corona business Covid les mille milliards volatilisés les mille milliards volontaires volatilisés di ko am suba incha allah dans opération rëbb dëmm vingt heures GMT vingt heures heure de Dakar fii sur Facebook Mollah Morgun incha allah kon à demain en attendant ma dajale dossier yi. ñi ñëpp da ngeen leen am suba ay dossiers yu brûlants yu tàng jër jër jër des révélations explosives incha allah et inédites suba à vingt GMT heure de Dakar one love guys ñu fanaan a jaamu peace and I'm out rapport bi kum ci génne di ngeen ko gis di ngeen gis ay euh, euh, Diouf saar di ngeen ci gis euh, Bamba Amar di ngeen ci gis Euh, mm, Mamadou ngoom ñaa di dage sport ñëpp antu bu ma leen bu ma leen waxee rek dossier boobu rek moom mooy fond Covid bi di ngeen ci gis ñoo ñëpp donc one love à demain et wax nit doof mon ami mon frère mon frère d'armes nit doof kii la di ko encouragé di ko wax ni sois fort bro te man xam naa ni ku foor nga te xam naa ni ku am abnégation nga ku ku gëm sa bopp nga ku wóolu yàlla nga di la wax ni sois fort la vérité viendra et inchallah on aura la vérité et inchallah on va changer les choses dëgg mooy vaincre di la wax ni kii la yow xam naa ni góor nga jàmbaar nga patriote nga nañ taxaw dëggal suñ bopp jëmmal suñ bopp di la encourager encore di mastaw di wax ni ndam day am kill la ndam day am kii la ndam day am te yàggatul soreetul jant dina fenk jant dina fenk bés dina jot ñun dinañ am ndam lu rëy ci kaw suuf di wax ki nga xam ni moom mooy euh, kill la courage et abnégation di wax ki nga xam ni mooy Cheikh Omar Diagne courage et abnégation ndam day am di wax ki nga xam ni moom mooy euh, euh, Karim Xrum Xax courage abnégation di ko wax bépp prisonnier politique bépp otage politique courage et abnégation ndam day am incha allah Dieu avec nous Dieu ne dort pas le pouvoir rend fou mais bës dina mës a ñëw dinañ am ndam ci kaw ñi nga xam ne ñooy noonu bi ñi nga xam ne ñooy noonu nation bi incha allah kon nag soyons forts et l'effort fait l'effort much love and thanks good night guys see you tomorrow all right peace and ama chia all right